Sow, le chargé des élections bu parti euh, PASTEF des Patriotes euh, aljuma ñu avancé tuuti wax ci euh, wàllum élection législative ñu wax rek par rapport ak kii di le député Toussaint Manga di mu posté ci page Facebook am di xam le ne fu ni rek ñu fragiliser kii nga xam ne mooy président Macky Sall ci wàllum élection il faut que Pastef ak ñii di waay xalaat ànd si yooyu les jongante yéen niveau de Pastef ban appréciation ngeen def si mariage boobu. waaw euh, ñun moom nous sommes fermés à aucune alliance. Euh, ñi nga xam ne par principe jàpp ñu ne jàpp ma ne dinañu ànd ak ñoom. mooy la mouvance Benno Bokk Yaakaar. Euh, ci mbirum alliance yi dafa am ñaar ba ñett yu ci am solo Euh, déjà il faut ñu considérer nature élection bi ñu jëm c'est une élection locale mm-hmm. ku ne élection locale wax ne lu bëri luy xew ci base bi lay am te ñun dañu jox cër ñi nga xam ne suñuy ñooy suñuy responsable man mii di wax ak yow je suis responsable dans une commune mm-hmm. ñeneen ñu bëri ñi nga gis ci bureau politique bi aussi ils sont responsables dans leur département et dans leur commune mm-hmm. donc il faut concilier la liberté des gens à la base de choisir euh, ñan la ñuy àndal ñan la ñuy investir avec les objectifs stratégique mais centraux du parti parce que nous sommes un parti politique également bu ñuy dem ci élection dañuy am ay objectifs on peut dire que on veut être premier après à la sortie de cette élection on veut gagner tant de villes on veut gagner tant de départements on veut gagner tant de communes donc il faut concilier la liberté des gens à la base avec les objectifs du parti euh, bu loolu weesoo euh, beneen bi mooy ñetteel bi mooy li nga xam ne mooy suñuy valeur mooy le patriotisme l'intégrité mm-hmm. la compétence yooyu dañ koy sóoraale à tout moment et avec avec avec qui que soit loolu dañ koy mettre en avant mais si valeur yooyu aljuma tey ñuy xalaat euh, Pastef euh, dem ànd ak ak kii nga xam ne mooy la président Abdoulaye Wade est-ce que loolu du demaa ba rek am benn wax bu mu def si si diggante euh, ñi nga xam ne kii nga xam ne mooy Ousmane Sonko ak Sénégalais parce que moo leen jaayoon lii di anti système te Sénégal fii kuy wax système foog naa ne PDS euh, nga ngay dut baaraam. xam nga euh, wax waxet du mës a am ci loolu parce que nee na la moom Toussaint Manga ci boppam wax na ko. nee na fi mu nekk nii on n'a pas encore discuté de projet mm. euh, ñu projet politique li ñu ci jiital mooy patriotisme intégrité compétence ak préférence nationale mm. euh, man gëwuma ne président Ablaye Wade symbole système bi la parce que système bi ah encore une fois de plus c'est pas une affaire de le président Ablaye Wade il n'a été président de ce pays de il n'a dirigé le Sénégal 40 ans li nga xam ne li nga xam ne li nga xam ne moom la nga xam ne moom la ñuy woowee système. Mm. c' est le résultat cumulé d' échec dans l' éducation depuis 1960 ba le résultat cumulé d' échec l' économie de 60 à maintenant c' est un résultat cumulé échec dans la sécurité. dans dans dans l' économie comme je l'ai dit donc li nga xam ne mooy système bi c' est une culture politique boo xam ne foog mu jëm fi jóge fi le président Ablaye Wade dëgg la. ci ay jamonoom il y a eu des rapports des organes de contrôle qui incriminaient certains de ses proches. certains de ses proches de sa famille ci de l'affaire l'affaire mais il faut dissocier ça président Abdoulaye Wade en tant que président de la République chef de l'administration euh, civile et militaire mm-hmm. est la responsabilité des membres de sa famille yaa ngi gis et aussi il faut dissocier les responsabilités et les degrés de responsabilité des uns et des autres dans le PDS suñu expérience politique aussi liñ ci jàng ci at yi ñu génn mooy dëgg la ñu sommes des patriotes on dañuy góor góorgóorlu pour nekk les plus intègres possibles et les plus compétents possibles mais ci suñu euh, relation ak opposition bi aussi nous avons découvert que dans la mouvance de Khalifa Sall il y des gens patriotes compétents intègres et que rien n'empêche que ñu demee ñu ànd ak ñoom élection on a découvert aussi dans nos rapports avec les les les partisans président Abdoulaye Wade qu'il y a des gens yoo xam ne amul benn rapport de contrôle bu ngaal bu ñu ngaal seen des gens qui sont patriotes quand leur parles mhm. quand tu leur parcours des gens qui sont patriotes et qui sont intègres ces gens-là demain mhm. s'il y a entre ñoom ak suñu base électorale les départements et les communes considérées gisuma lenn lu war a empêcher ñu ànd ak ñoom toll ni euh, dafa am en face euh, la réalité politique euh, socio bu réewu Sénégal sociale bu réewu non xam nga xam nga ñun il faut nit ñi dissocier ñaar y la stratégie politique y a la stratégie wax anti système. non non non non c'est-à-dire ñun quand on dit quand on dit anti système c'est la façon dont ce pays-là est géré depuis c'est les politiques comment les politiques sont faites. Mais... notre non la qualité de nos rapports avec l'étranger qu'il faut changer notre politique de sécurité notre politique économique comment faire en sorte que 3 pour cent euh, que l'économie ne soit plus tirée par 3 pour cent d'entreprises et qu'au détriment du plus grand nombre ñun dañu jàpp ne les ruptures systémiques à opérer son à fait dans la justice l'économie l'éducation la recherche maintenant à côté de ça il y a ce qu'on appelle la stratégie politique ces stratégies politiques aussi on veillera à ce qu'elles ne compromettent pas suñu valeurs yi nga xam ne moom la ñuy woote ak suñu politique bi nga xam ne ak suñu euh, suñu suñu principe yi nga xam ne moom la ñuy woote. stratégie politique boobu est-ce que loolu moo taxoon euh, tey jii euh, le président Ousmane Sonko mel ni kuy def clin d'œil au maire Barthélémy Dias parce que président Ousmane Sonko ku ko xam-xam du xamee ko si koo xam ne dafay nekk di tagg moroom moom waaye dañu say des remerciements des remerciements à n'en si kaw kii di Barthélémy Dias mu mel comme koy def un clin li ma gëm mooy. discours tey li président Ousmane wax jëmale ko ci suñu frère Barthélémy Dias. c'est pas un discours maintenant vous l'appelez frère c'est pas un discours électoraliste non tous les sénégalais sont sont nos frères uh-huh. euh, euh, dinañu am ay wuute nag ci ñenn ñi ni ñu yore li ñu jox wala ñenn ñi seen choix politique mais ils sont frères mais li ma lay wax mooy li président Ousmane Sonko wax ci Barthélemy Dias tey c'est pas un discours électoraliste lu mu gëm la et c'est le résultat des relations personnelles yi nga xam ne ñoom ñaar am nañ ko mais bu doon loo xam ne gëm naa ne bëri na ñoo xam ne ci euh, Sénégal gis-gis boobu mu am ci Barthélémy Dias euh, am nañ gis-gis mais encore une fois de plus comme j'ai dit il sera question de concilier la liberté de la base avec les objectifs centraux du du mm-hmm. parti au moment venu. ñu desee di ba tey ci euh, tenue élection locale yi yéen ngeen bokk ci dialogue politique bi si je me trompe euh, mu nekk mel comme euh, tenue élection yi dafa incertaine au niveau du Sénégal pour yéen ñi nga xam ne yéenay assister ci yooyu lay dialogue fan la point de désaccord bi nekkee parce que ñu féetoo ci nguur bi ñu ngi wax ne opposition yi ñoo pareegul yéen ngeen di brandir que état bu Sénégal wala le président li am ci mbir moomu mooy Macky Sall euh, xam na ne actuellement il est structurellement impopulaire dans Sénégal mhm. euh, li mu trouvé nag comme trou li mu trouvé comme pexe mooy dàq élection maintenant ci dàqum élection boobu dafa convoqué liggéey bi nga xam ne commission politique def na ko ak conclusion yi nga xam ne am nañ ci commission politique bi doon waxtaani mbirum élection yi mu dàq élection yi may xamal sénégalais yi ne mhm. élection dafa di matière boo xam ne code électoral moo ko régir mm. boo demee ci biir code électoral boobu amul fenn fu ñu wax ne mm-hmm. euh, euh, discussion entre acteurs politiques yi mm-hmm. mën na nekk motif de report mm-hmm. ki nga xam ne moom moo am responsabilité tey euh, fixer jour élection yi c'est le président Macky Sall sur la base de l'article L63 du code électoral ñoom nguur gi tey boo leen dégloo dañ lay wax ne opposition bi moo ne nañu auditer évaluer fichier bi te loolu dafa laaj temps may xamal Sénégalais yi ne ba ñu d'accordee loolu ci commission politique yi ak tey euh, weesu na juróom-ñeenti weer parce que c'était au mois de de de de de janvier mën naa wax ne avant ñuy jeexal décembre il y avait un accord qu'il fallait évaluer le processus électoral de la refonte partielle de 2016 à l'élection présidentielle de 2019 mais aussi il fallait auditer le fichier électoral mm-hmm. en février 2020 yónnee nañu ki nga xam ne mooy Famar Ibrahima Sagna bataaxal pour xamul ko ne d'accord nañ ci mbir mi bu ñu sañoon ñu tàmbali liggéey bi des à présent mhm. pour que ñaari opération électorale yooyu muy audit bi ak processus bi mu féete ginnaaw mais ba mu ko président ba mu ko jotee mois de mars ak fi may wax ak yow amul benn euh, acte boo xam ne initié na ko allant dans ce sens la pire barki démb bi ñu paree waxtaan yi mhm. au mois de septembre je pense que c'était le 18 septembre passé ci lañ def suñu de euh, de de travail mhm. Euh, yónnee nañu président li nga xam ne mooy rapport spécial bi annexé ci le rapport complémentaire bi nga xam ne ci la ñu fixé dernier point yi nga xam ne moom lañ doon waxtaan waxtaane diggante 18 septembre ak léegi chaque semaine le gouvernement a des conseils des ministres amul benn conseil des ministres boo xam ne euh, jël nañ fa ay mesures pour exécuter li nga xam ne mooy déggoo yi nga xam ne am nañ ko ci commission politique yi politique bi bokk na ci euh, auditer fichier bi ak càmbar li nga xam ne mooy processus électoral. donc s'il y a aujourd'hui élection sax euh, kii di président de la république Macky Sall du ko amal 2020 2021. bon man je ne suis pas je ne suis pas dans le secret des dieux mais li nga xam ne mooy suñu position. ci mbir mi mais dalay wax concrètement que 2021 élection do waa waaw loolu moom moo am ay base moom moo xam fan la fan la sukkandiku pour wax ko mm. euh, mais su cette affaire là on a une position de principe qui ne varie pas. Mm-hmm. mooy y a rien y a rien qui s'oppose a aucun argument amul benn euh, argument wala mhm. prétexte mhm. boo xam ne ñoom tey man nañ ko teg ñu ne lii moo tax ñuy dàq élection yi mais à l'arrivée il y aura un responsable mhm. responsable boobu du doon classe politique bi responsable boobu mooy ki nga xam ne moom la yoon obligé mu jël li nga xam ne mooy datu scrutin bi bu ko jëlul il sera seul responsable devant l'histoire et devant les Sénégalais muy le président de la